oustaz ñu ngi am mbégte ànd ak yow euh, wax nañ ne nanu moytu euh, julli julli julli mbooloo yi euh, defe naa ni foofu noppi ngeen ngir jàppale ci kilifa yi xam nga jàppale goo xam jàppale sa bopp la sax de <laughs> ndax xam nga boo boo boo tawatee doo tal jaamu yàlla ngir ngir rek lépp luy gën a lawal xibaar yi. jërëjëf Alaaji Asan ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax di jaajëfal waa RFM yëpp. macha allah ci ni ngeen di def ci combat bi. jërëjëf. Euh, lii nga xam ne moo xew nii dafa xewoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax moom ku nite la Alaaji Asan mhm. te lu mu mas a def lu nite la dëgg la am na ko mas dal ci saaba yi def ko toogal sa kër ba wér am na comme lay saabi magum saaba mun na ko toogal sa kër ba wér mhm. loolu waaw ah, benn mooy dëgg ba ca tege mooy daf naan wax ne bu ngeen xëyee na ngeen raxasu bala ngeen a def dara du dëgg bu kenn te sooli ci biir nit ñi ñuy dëgg sa baat macha bu kenn ubbi te ubboo sa gémmiñ. Hmm. waaw loolu la doon wax. jamonoy taw daana am mu ne bilaal booy nodd bul wax kaaye leen danga naan sallu fii rihaalikum na ku ne jullee këram. Hmm. loolu la daan wax. kon bu ñëwee ba jamono ji tey ñu ne dañuy. Hmm. taxawal julli <laughs> jumaa taxawal julli mbooloo nangam nangam. loolu daf ci daf ñu ci fekkoon. lislaam waxoon na ko. lislaam waxoon na ko. te jëfe woon na ko. ala jëf doon soo seetloo li ñu ne dañ tëj frontière yi. loolu waxoon na ci daf ni woon hmm. ku ci nekk ci barab feebar bu mel nii fekk la fa bul génn hmm. bu la fa fekkut bul fa dugg donc moom yooyu ma wax loolu am na solo lool moo tax nii ngeen def nii jotle ko ci nit ñi tudde ko comme tudde ko hmm. daan daan ko daan corona daan corona ñun ñëpp bu ñu àndee danañ ko mën a daan ba biir bu yax dëgg la euh, yë yëgoo gi li tax mu am solo bu bu xam nga explication yi nga indi solo gi mooy euh, ñi ñi foogoon ni yéen da nga bu ma nee yéen mooy dañ naan lislaam gi danoo danoo danoo xamul li xew dañ leen di sensibiliser euh, ñu wane ci ak dëgër bopp demeewu ni ndax boo yow ni nga waxee ni wàll yëpp ils disent la même chose wax ji kay mooy xanaa kon yëgoo ci nit ñi moo ci des. waaw yëgoo ji moo taxoon ñu woote woon woowoon ñëpp borom xam-xam yeeg imaam yeeg ulama yi ñëpp ñu woo leen. Hmm. indi leen masala yu mel nii ba bu ñu fa jógee rek ñun ñëpp ñu la koy dem ci kër yi toog te xam ne lii ñuy def nii fii lañ ko teg njàngal mi ko teg ki nga jàngale woon te mooy sunu sunu gidd. Hmm. mooy sunu jàngalekat te Alaaji hmm. lépp lu ñu yëkkati ñu naan lislaam nangam ak nangam loolu darul lislaam rek waaye bu di lislaam moom ñëpp ci bokk ànd ndax moom li mu indi woon leer na nañ. dëgg la. wa maa mais xam naa na ngay dugg yaa ngi yéeg léegi antenne. <laughs> waaw maa ngi nii doo leen ñaan waa aussi FM ñu synchroniser ñu ñun benn yoon ne nee nu ñu jël RFM <laughs> kon balaa ma la yeewi oustaz démb wax nañ fi waxi karaw gu nekk ci biir euh, alxuraan euh, nit ñi dem man li ma ci gis sax ci positif mooy ñi ñi daawul laal kaamil yëpp ak ñi ko amuloon seen kër yi dem nañ jëndi ko faaf. waay waay moo lay wan aspect aspect aspect ñàkk xam lislaam gi. ci ñenn la ca garaaw nag mooy. Mm-hmm. ña song kaamil ba te yoruñ njàpp. voilà voilà ak ña ko song te nekk seeni régal. Mhm. ak ña ko song te yor janaba. est-ce que. te loolu yëpp joru ko ndax su yonent bi du ñu ci ay kawaram. sallallahu alayhi wa du ñu faj ci ay kawaram. Mhm. Mhm. maa ngi jaajëfal baax a baax sama mbokk ba nekk sama xarit boobu. Oustaz Mor Thiam. dégg naa yóbbulu yóbbulu mu def tey ci suba bi noonu. yóbbul bi lu am solo la. dëgg la El Hadj Assane. yonent bi dugal ci reer dem ba mu am junni at. mu ne loola ma leen tere woon delluwaat leen. dikkaat na vraiment mënta ne. du dëgg. Hmm. nit ñooy dox ci maayiru nit ñi ak ci seen i hmm. waaye amul am kaamil bu am kawar amut. naa hmm, ngeen fanweeri kaamil ak juróom-ñett fii ci kër gi. amu ci benn ba am kawar googu. bu yi dakkul ci bokkaale lañu jëm de ah, ñu ngi ci sax ci yenn fànn yi dèjà. ci lañ jëm ndax jëlu kawar di ko di ko xooj di loolu kay bokkaale mënu ko weesu. kawar du kawar du indi jàmm fii ci dëkk bi. dëgg la dëgg la du fi jëlee corona xam nga lu fi jëlee corona. déglu ministre bi. oui déglu ñu ciy wax. docteur yi. déglu docteur yi. Mhm. déglu religieux yi. ak ñaan yi boole liñ ci dégg lépp ak ñaan gi. jërëjëf muy fegu ak fajo ñaan. macha allah su ko boolee koor naa jóg bu ñu ko fi jóg na xooj ay kawar hmm. xooj ay yeel xooj nangam ak si bëñ. Hmm. loolu du ci du fi jëlee feebar. dëgg la jërëjëf yaa Oustaz. jërëjëf yàlla yàlla fay la yiw. maa ngi jégalu si gàttaay bi nii ndax maa ngi ci ba tuuti si jóg. waaw mënut a ñàkk liggéey bi benn la ñu ngi lay gërëm ak naataango yëpp ñoom Baye Omar Gueye dama bëggoon dañu <laughs> ñu ngi lay ñoom Sud FM ñu jël daan coronavirus. <laughs> merci très bonne journée Oustaz euh, euh, Taïb Socé mu ngi fi euh, voilà docteur Camara bu ñu gaawantuwul mu dellu ci tey di Aliou Oustaz waaw jëlal docteur Camara. non man kay moom comme euh, kii euh, auditeurs yi dañuy poser question muy tontu wax nga dëgg oustaz comme yow ci kër gi nga bokk. professeur Camara est-ce que il est en ligne Aliou. ah pas encore donc euh, ndeeguñ ko kay kon oustaz ñu bala nga nuyu mbokk yi rek et puis nga wax sa xalaat ci jàngoro ji yow ngir xeex gi nangu nga moytu gi jëm ci dajaloo yi ak mbooloo yeeg yooyu. waaw jërëjëf El Hadj Assane ñu ngi lay nuyu di nuyu El Hadj Assane di nuyu oustaz. Aliou Sall Aliou Sall moom mu bàyyeekoo fi. Ah. Eh, maa ngi doon déglu docteur Daouda Ndiaye sama xarit la moom itam maa ngi koy jaar eh, di nuyu ñi di di di nuyu ñiy déglu rajo bi yëpp. jërëjëf. Eh, waaw léegi comme ni ni ko ni ko ni ngeen ko waxee àdduna bi waxee ko. Mm-hmm. yonent bi nee na sama xeet du ñu dajaloo ci ak réer. Mm-hmm. xeet du ñu dajaloo ci ak mm-hmm. lu ñu dajaloo ba jullit ñi ànd ci rek yonent bi nee na loolu lu baax doon. te arrêté jàkk xanaa du Sénégal rek la booy ba boo xoolee monde islam yëpp. vraiment daje mbooloo yi. Mhm. tere ko te loolu dafa logique dafa logique xam nga boo bu yónnent bi ne nit ku feebar warul jaxasoo ak ku wér. Mhm. jàkkee yi nag am na ci lu ma ci xaw a jaaxal tuuti yaa yaa Assane Gueye. Mhm. démb dama dem di julli ji tusubaar benn jàkka fekk ñu tëj ko. ma yaakaar ne julli yi juróom. nga xam ne jàkka yi boo demee ay juróomi nit. waaw benn benn gi waaw ñeenti nit a fay ne mais loolu moom defe naa ne war nañ koy mën a bàyyi te bàyyi jumaa jullit mbooloo lañ wax. mbooloo mi waaw mbooloo mi mbooloo mi jullit jamaa wala lu mel ni. bu ko yi ñu jël mesure yi ñu mesure hygiène yi ñu yi ñu mm. bàyyi ko. dandanteeg yooyu waaw ay kilifa fay dem bàyyi ko seen kër. ñu noddu ñu ñëw julli parce que nag. dëgg la jàkkee yëpp yëpp yëpp mm, mm, def ne sama kër yi sama jàkkee yi nañ ci tudd yàlla. Mm-hmm. mais léegi bu ñu tëjee yi ba benn jàkk kenn nekkatu fa di tudd yàlla mm-hmm. ma yi. ak julli jumaa yi mën ci quartier yi ak julli juróom très bien. mais waaw xam naa nañ ci bàyyi xel waaw loolu am na ah, solo. mais loolu boo gën parce que. bu ñu dañuy jàkkee yëpp te jàkkee yëpp musiba la de ah. dëgg la dëgg la danger am na euh, euh, maanaam pour fegu rek. ci mhm. ji. Mhm. tax na julli mbooloo yi te nag du jàkkee yi rek. ah très bien waxoon ne mboolem fu nit dajaloo di fa di nekk mbooloo. Mhm. nañ ko wàññi parce que xamuñ ci dala ki ki yor feebar bi ak yoru feebar. dëgg la léegi oustaz bul ma commencé ak professeur bu ñu jeexalee yow comme ci kër gi nga ma jeexale ak yow <laughs> ci ñu def tafsir gi <laughs> professeur Makhtar Camara moom ci euh, la Dantec di di virologue professeur maa ngi lay nii bu baax. maa ngi lay fay Alé ñu ngi lay gërëm bu baax ci yow tamit li ñu baax as tuut ci yitte yi ndax xam naa ni jot jot jot bariwul. Euh, auditeurs yi euh, merci merci Camara. Euh, mbokk auditeurs yi mën ngeen woote ci 88 628 14 14 bu fekkee am ngeen lu ngeen di laajte ci jàngoro ji ndax li ñu ko waxee virologue maanaam moom xam am ci wàllu virus di doomu jàngoro ci ci ci la màccee moo waral invitation bi Aliou da nga am benn auditeur wala ñu jël déjà <laughs> asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Euh, Joseph Assane maa ngi nii sëñ Assane ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. jërëjëf. man la docteur Omar Sy di woote Kolda. donc euh, mu bëggoon euh, sargal ak remercier kii di professeur da Ndiaye. ndax euh, vraiment bi la Covid 19 taxawee ba léegi ci jamono. nappuwul mhm. benn yoon ci di jéem a euh, orienté nit yi ci li nga xam ne moom la ñu war a def. Mhm. Euh, je pense que boobu noonu li ci jiitu woon mooy rapatriement bi nga xam ne vraiment. Mhm. bokkoon na ci ñi waxoon buñ ko def. te je que rapatriement boobu tey moo jur. li nga xam ne moo ma xew ci réew yi nga xam ne vraiment réew tugal yeeg yooyu. li ñu rapatrié woon seen i seen i donc bokk na ci ci ci ci ci la waral euh, tolluwaayu maladie bi jamono fu mu toll nii donc voilà leneen li nag mooy vraiment pour pour le moment je pense que mhm. euh, li ñu gën a soxla mooy ay généticiens quoi ñoo xam ne seen xam-xam dañoo dafa màcc jëm ci wàllu génomique ndax ah. dañoo bëgg xam virus bi fu mu toll nii bi nga xam ne moo waral feebar bii di mm. covid 19 mm. di SARS SARS-CoV-2 nga xam ne tey moom la ñu bëgg a xam lan mooy séquence génomique bi. Mhm. Euh, traitement bi ak vaccin bi ndax jamono tey loolu la soxla. luy mhm. traité mbaa luy vacciné contre Covid 19. Mhm. te loolu pour ñu xam ko il faut ñu xam séquençage yu génome génomique wu virus boobu. te je pense que. ki nga xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu woowu. Mhm. Euh, nekkul keneen ku dul professeur Daouda Ndiaye ndax mhm. moom moo jiite. Mhm. centre bi nga xam ne mooy le centre international de formation et de recherche. donc euh, sur euh, les agents infectieux. et la génomique. am na solo donc kooku noonu tey tey jii tey dañoo soxla xam dañoo soxla xam-xamam dañoo soxla mu dalal suñu xel dañoo xam soxla mu orienté ñu. ci loolu noonu ba tey ba suba ñu mën a am li nga xam ne. mooy traitement bi très bien d' accord naa ak yow na gën na yaatul

diagnostiqué li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, euh, virus bi. doomu jàngoro bi boobaa dinañ hmm. mën a génne traitement bi dinañ mën a génne vaccin bi. justement loolu lu ko mën a def. mooy les généticiens. les généticiens yi ne am am nañu leen Sénégal. Hmm. ki ki xam ne xam-xamam gën nañ ci ñëw. muy le professeur Daouda Ndiaye. ndax moo jiite centre bi nga xam ne mooy le centre de recherche et de formation sur les agents infectieux et la génomique. très bien jërëjëf moom dañoo soxla di ko déglu. merci dañoo soxla mu ñuy mu ñuy dalal suñu xel dañoo soxla mu ñuy orienté. merci beaucoup si. professeur Makhtar Camara ci d' abord bu fekkee am nga ci un ci li sa waay wax sinon euh, nees mën a def ba gën a xamee doomu jàngooro jii ndax c' est vrai que dafay soppar ñi entre temps ak it euh, ndax dina yomba rey ci gàttal. waaw euh, rek ma ma gërëm d' abord nuyu professeur Daouda Ndiaye ak sama naataango boobu. Hmm. ak docteur Aliou Diouf sunu sunu patron mooy sunu sunu kilifa. dëgg la si solo bi def mu nekk nii pour vraiment askan bi. Hmm. donc euh, euh, mbirum génétique lu am solo la. Hmm. parce que bu nekk nii euh, virus bi dafa nekk ci mutation bu xaw a gaaw. Hmm. waaw mu nekk nii sax ñu naan au moins am na ñaari ñaari virus yu différents. virus hmm. ki la. ñu ngi ñot sax naan virus bi nekkee Italie moom moo contaminé kii jógewoon Touba. est-ce que. virus boobu dafa uteex virus bi nekk France. bi nekk France. xëy na rey loolu tax sax rey bi gën a bëri côté Italie. mais loolu yëpp des na gëstu. des nañu gëstu confirmé ko. parce que li gën am solo mooy. Mhm. virus bi virus ARN la. positif. oui.